La coalition Sonko à président, sa journée d'hier a été marquée par une caravane et un meeting à Dakar. Suivant. lii jot campagne électorale la proposition la jamono texte table bi lu concret la du jamono ñu tëgg fecc mumbai bi beuri bu affaire bi waji jeex waji yeeg ci tribune bi jël micro bi ñaari minute jeunes ko amul liggéey wala mo doxul ci rewmi mi ne woy nga ne bravo dina len jox liggéey ciune waratul laaj rewmi désormais le peuple sénégalais va être très exigeant vis-à-vis de ses acteurs politiques am nañu un programme ambitieux en termes de politique économique nous ñu koy lal sur l'impératif je pèse bien mes mots l'impératif d'industrialiser ce pays parce qu'on n'a jamais développé un pays sans industrie Nous avons un programme social bu ngeen dul gis fenn généraliser le système de prévoyance sociale ba sénégalais bu ne moo xam menuisier bi mécanicien bi moo xam jànq bi liggéey ci biir je xam chauffeur de taxi bi je xam coxeur bi nous avons am une couverture sociale nous avons am couverture maladie nous avons am retraite comme tout le monde dañu né état dafa am dafa soxla ay ressources wara des def ay dépenses premier élément ci ressources état yi moy li ñuy wax l'impôt fiscalité mo ëpp ci lu état mun a dajale te loolu ci réewu aduna bi yépp la su ñuy wax nak, nag nit ñi dañ naan wuu waa ji su ñëwee moom ñépp lay taxé déedéet l'impôt mooy ñun li ñun naka def ñépp bëgg nañu faju nyep bëgg nañu lek ba suur te lek lu baax ñépp bëgg nañu am école bu baax pour seen dom jàng ñépp bëgg a daw ci ay tali yu baax bëgg am ndox gis ngeen dem ba léegi ndox amul ndakaaru comme ñun loolu yi ñun ñoo ko lu kenn ku ñu ne kon kenn ku ne na comp ci poosam as tuut loo xam ne du ko faagaagal du ko lor daat koy def ci gafaga bi ñu bokk ñun ñëpp muy trésor public lor rek mooy lémpo ñun dañoo am yéene ni dañuy wàññi impôt bi ci kenn ku ne li ngay supporter impôt bokk na ci mesure yi sax ni impôt sur les sociétés nga xam ne tey mi ngi 30 pour cent dinañ ko delloo si ba 23 pour cent kon ku lay defal loolu yokkul impôt gi ñaareelu série de mesures mooy lii nga xam ne yàlla wërsële gënuñu ko muy suñuy ressources naturelles te ki fi nekk sàggan ba dem joxe ko jaay ko laa war a wax sax parce que soo demee ba ñu ne la li nga am ci ressource naturelle munoo ci am lu weesu 10 kooku musiba la loolu lañ ne nun de bu ñu yàlla dénkee réew mi jaarale ko ci yéen li ñu am ci alal muy pétrole muy gaz muy zircon muy leneen ak leneen ak leneen kenn du ci ëppale Sénégal dinañu renégocier tous les contrats wala ñu nationaliser ko su dee renégociation bi dafa dëgër waaye munoo nekk ci réew ci 25 pays les plus pauvres du monde la ne yàlla wërsëgale ñu ay ressources yoo xam ne rek na régler suñu problème ñu sàggan ba jël ko jox ko ñeneen ñu ñu di levier levier bu ama am solo

la ñuy yàq ci état mënu ko imaginer j'ai été haut fonctionnaire Lorsque rek suñ ci démontrer Démontrer naa ni suñu jëlé les norme de l'ONU ak étude yu ñu def nee ci pays développé yi 11 de surfacturation sur les marchés publics kon ñun suñu réew yi xam nga ni warna ëpp 30 So cent 11 sax daal koy jël ci volume marché public yi passé c'est quasiment plus de trois cent cinquante milliards yoo mun a économiser at bu ne mais loolu ñaata la mun a tabax ci ay classes caay-caay gi nekk ci li ñu yoree réew mi parce que ku ñëw indi ay mallette d'argent joxe ñu signeel ko li bëgg waaye tey suñ ñu wóoloo ba dénk ñu réew mi lii ñu moom ci ñu alal jox ko ay nit ñuy wër di ko jaayante entre ñoom législation ne woon ne loolu lépp dañ cee waroon feye ko ay lémpo biñ ko calculer ñun ay milliers de milliards la yo xamné tay warona delu ci dellu si Sénégal je parle au peuple sénégalais bu ngeen ñu wolo de lepp dina delu ci xam ñu njàmbatu Sénégal quand tu fais le tour du Sénégal tu as mal au cœur dem ci all bi dem ci les Sénégalais souffrent il est temps qu'on mette un terme à ça et c'est ça les enjeux de cette élection présidentielle moo maat suñu bop les combats tous ces gens-là ont été trahis depuis l'indépendance par la manière dont on a gouverné ce pays vous devez être nous devons être les dignes héritiers de ces ancêtres les dignes héritiers de ces devanciers en gagnant ce combat-là et en restaurant la dignité nationale li jot jotna, suñu la ca tegu moy li ñepp bok ñepp jot si tay li ñepp bok dafa fété bor ñen rek ko yor nous sommes des patriotes nous croyons à ce pays et inshallah, nous allons gagner jeuf le candidat Ousmane Sonko de la